ay rigol yu fees dell ak i mbalit wante lii di ay regard yoo xam ni dafa fees ak suuf moom kat buñ ko seetee du jox ëllëgu Touba ëllëgu dalum xel jamono yi nga xam ne ñu ngi dëgmal nawet bi. ndax kenn ku ne xam ne li fa am nga ne rëfatul jëkkul jaarul te gis nga ab canal la nekk nii te fee gis nga lii fi nekk nii ab canal bu nekk fii te gis nga suuf fi nekk nii kon loolu maire moo war a jël wax ci ñu fexe liggéey dëkk bi te bàyyi tappale ak caaxaan yi ngi nekk ci dëkk bi ndax nii ngi nekk fii amul benn njariñ yaa ngi dégg ñun nag amuñu ki nga gëm mooy sëñ tubaa moom na yaakaar tey ëllëg dëkk bi li ñu war a wax dañ ko fi wax mënuñu bàyyi ab mënuñu bàyyi ab dëkk lu waay neex def lu waay neex wax gis nga mbogo mbogo ak mbalit mii marché baa ngi takk rib kenn ku ci wax benn ku ci jël benn solution kon nag li ñu mooy lii am ci dëkk bii ñu ngi koy ñaawlu askan wi yow diwaanu tubaa am tiitaange lool ci seen ëllëg lu ko waral jamonoy nawet mbënn mi léeg-léeg mu faral leen di sonal. maam nawet nawet bi nag fii bu jotee maam mbënn be mbënn meeg yooyu noonu maam moo ñuy sonal maam maam ñi nga xam ne ñooy ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam ñooñu maam ñoo war a maam dox siy jéego bu wér a wér pour nawet beeg yooyu noonu pour mbënd mee xeet yooyu noonu lu ñu si mën a dimbalee rek. waaw ndox mi moom day yaatu lool surtout maa côté la si kaw côté Daaru Xuddoos bi marché Daaru Xuddoos booy dugg si o bi côté boobu day am mbënd mu doy waar ñëpp daal maam dañuy sonn waaw ku ñu dimbalee rek ngir jëmmi sëñ Tuubaa nag la ñuy sàq waaw nguur geeg yooyu noonu ñu taxawuñu ndax waa fii dëkk bu sell la dëkk bu sëñ Tuubaa la dañ see war a jàpp waaw taxawuñu bu baax a baax a baax a baax si lépp waaw man na war nañ mën a am ay surtout ma waaw góor yàlla yi bàyyi faa léegi yëpp war nañ mën a am war nañ mën a am wàccuwaay bu kawe ci dëkk bi daal ci Sénégal yëpp waaw maam daal ku ñu taxawu lan bëgg ku ñu jàppale loolu képp. ñii di kilifa yi nag ak askan wi yëkkat nañ seen kàddu sàkko ci maire bu Touba ak kilifa yi nga ko nguur gi ñu def li ñu war a def. même màggal Touba gi ñëw nii ci nawet lay fekk te benn parwaar boo xam te ni parwaar nañ ko ci dëkk bi ndax ñu war a def a def loolo luñ ci mën a dimbali nañ ndax màggal Tuubaa gi di ñëw nii day tombeek nawet bi fi nekk nii te buñ ci jëppul nit ki bu ñëwee du ñu am fuñu jar ki bu ñëwee nit ñi gan yi nga xam ne dañuy ñëw te bu ñëwee ci a dal te am na ñoo xam ne saa la ñuy dal te day taa maam ndox mi dafay bari daal kon loolu niñ ci mën a dimbali